di weer woo xam ne mooy weeru sëriñ bi di weer woo xam ne sëriñ Tuubaa wax na ne ci bis bii bi mu demee liggéey la sama boroom yàlla lépp loo xam ne jëli na ko ci liggéey bi bu bis bi dellusee dañ koy dolli te alxuraan moo nu indil ne nu ku sant nu dolli la sant googu yi nag sama boroom wax ko mu late lool koo jug rek mu taxaw wax ko ne sama boroom nee na ku sant yàlla dolli la sëñ tubaa nag dolli googu yi ñu koy dolli ci ci kaw loolu yi nag lanu woon nun ci cant dugal ñu ci loolu yi sëriñ bi it indil ñu tutikeem bi tawféexi biir ak bitti ak ëllëg ndax li tukki bi rëy li mut indi dafa wax ne rafextu fi xikmati tawfiixul haadi ne jële naa ci sama tukki bii ma liggéey li woon ci géej gi taw féexu sama boroom taw féexu sama borom nag kenn xamut fu mu dale ak fu mu yem kon ci biir taw féex googi ak ci liggéey boobu mu doon liggéey ci lañ lay siyaar ci la ñuy ñëwit bariwut benn kilifa goo xame ne ci wàllu nguur la walla état la nu gis ma sax nu àndante maak moom àndin wi kii dafa tollook ne ni ma demee ak moom lépp du démb tey la bi ñu jógee ñëw yaay bunt bi ci ñëw war a yegsi ci yow loole nag ba ñu ñëwee ñu amoon ndigal ci sëñ bi mi di fekk nu fi waaye waxtu wi yoon wi xawoon na am nu mu mel waaye dañuñu benn yoon ba ndëgën démb Ablaay mii bi ñuy wax mu ne sëñ Basiru moom day sama sëriñ day sama xarit te lépp lu xam ne maa ngi ci suba ak ngoon moom da cay nekk ak man yërëm na ma jàppale na ma ci taxawaay boobu ma ne ko sëñ Bassirou de fu mu nekkul fu ne man bu ma ko fa nekkaleet mel na ni ma nga fa ndax jaxasoo gin jaxasoo jaxasoo biir la te ku jaxasoog moom it nit ku baax a ngi nii aalim la it borom xam-xam la jàng xam li mu war a xam ci kër sëñ Soyibu gi ak ci pincum sëriñ tubaab mi ba mu mat sëkk amul benn yoon woo xam ne ci ay wàll am na ca ak des ku jaxasoog moom rek di nga xam ne ku yàlla matal sëkk la tubaar fakal la jikko yi it tubaar fakal la ndax bépp jikko boo xam ne jikkoy sàng la rek moom nekk na ci moom mi maag moom nag dañuy nemmeekonte guddi ak bëccëg wolof nag day wax ne diw li ma ko jege ba mu ëpp moo tax mënuma caa seere ma ne moytul sab noonu nag wuutu la ci sab xarit ba seere ca luy tax nag yow ngay wër di wax kon kii nun noo ko war a mën a seereel nun it noo ko xamit jaxasoog moom démb ni ko sëñ Ablaye Mbaye waxee léegi ca maam yala ak wéyjur ya mm-hmm. ba tey jii loolu yi maag moom nu koy ànd amul lu ma soxla ci moom it muy fanaan àll wala muy yendu àll nu bokk it ay xarit muy jàppale it sëñ Muntaxa di jàppale it taalibe yi mm-hmm. moom mii muy guddi muy bëccëg it léeg-léeg ma ne ko kar ne ko diw di ku jar a dimbali la lu sotti ci wàllug sëriñ bi te coono nekku ci ñun lii ñuy màggal nii fitna dong la ñuy màggal di bis biñ ko génnee këram tàqale kooku jabootam tàqale kooku lépp te ñaari bëgg-bëgg la lii yàlla moo ko bëgg bii moom moo ko bëgg lii yàlla bëgg ci moom mooy am na liggéey boo xawee ne moom moo ko war a liggéey te nit mënu ko jinne mënu ko malaayka mënu ko te dina génn aw askanam mu génn dem defi liggéey boobu yi muy mbind mu rëy mii mu bind def ko muy bor boo xam ne sama borom moo ko diggaale woon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mu wax ne xilaamin alayha day un lil mati li sayidi ne sama xalima gi bor la boo xam ne dafa jëmoon ci diggante rasulillahi sëñ Tuubaa ne bor boobu ak yàlla digale woon mu ne maay ki ñëw yeggale ko loolu moo waral tukki géej gi mu génnoon dem liggéey bi beneen bi ci des nag muy bëgg-bëggam mooy li mu waxoon ne mu laasiman kal ahlil badri ne dama bëgg a takkoog rasulillahi nii waa ahlul badar taxaw ak moom ba man sama boppit kenn du am werante ne fu ne nit gis neen mu bind ne saxetu bi anna allah yàlla seere ne man xaadim rasul mi kenn laaj ci ñooñ badar ku yàlla ber la ku nekkoon ci seen biir kon kooku nag liggéey boobu mu liggéey coono rek a ca nekk kon nag ñu ngi lay jaajëfal Mbàkke di la massawu coono yi nga xamee ne muy guddi muy bëccëg yaa ngi koy daj ci liggéey bi ab Ablaye nag wax na ma ne ma ne ma yow moom da ngay léppam wéyjur nga xarit nga tey danga koy taxawu da koy taxawu biir danga koy taxawu bitti xam naa la ca war sax moom dina ci dikkal boppam waaye wax na ma loolu yi nuy sàkku nag nga ñaanal ko ñaanal mbooloo mi àndal lépp ànd ak chef de service yi ànd naag ilimaan ji ànd naag ñi nga xam ne njabootu boppam lañu ci wàllu politique bi noonu yi nag la jóge léegi ci sëriñ bi sëñ biit lii mu la tawat rek moom la ko tawat it mooy réew mi am jàmm liggéey bii nga xam ne moom mi ngi koy def te dafa fas yéene topp ci ginnaaw boroom réew mi rek moo ko tax di jug lool yi la seereel sëriñ bi ne ko moom ci loolu rek la fas yéene nekk sàkkuwul dara wutul dara lu dul fas yéene rek di ko liggéeyal bin ñëwee ànd ak sëñ Cheikhouna Mbacké mi it mu am ci taxawaay lool di ko jàppale ab Ablaye Dieye bin ñëwee tey jii noppaluwul benn ci taxawaay yëpp rek mu taxaw ci. noonu la mel kon nag ñu woon dañuy ñëw nag siyaar la. man ñaare waxtu weer wi dinaa la ci siyaar si sama sama digg yow ndax xam naa euh, fi nga ci toll ci sëñ Tuubaa di ko liggéey ndax xaal bi nekk ci sëñ Muntaxa rek ci bëgg sëriñ bi ba mu jeex takk loolu rek moo nekk ci yow te bëgg sëriñ bi nag am na boroom xam-xam bu waxoon ne bëgg sëriñ Tuubaa nee na doy na sax wér wérd mahabbatul abdul hadimi wérdi la daasul si xayrul widdi mu ne bëgg sëriñ Touba doy na wérd kay boroom arasit xam na ne mooy gën gi wérd kon loolu yi te sëriñ Touba it diiru mu fi nekkit tawxiid gu mat sëkk la woote lislaam ju mat sëkk la woote sëriñ bi tarixaa ko fekk si waaye musta woose tarixa mooy umma lislaam bi yëpp la téye woon ku jaar ci moom te mel neneen rek yaay na nga mel waaye sëriñ Touba lu mës def ci nit mooy loolu yi boo seetee njëlbeenam téere yu njëkk yi mu way yëpp téere tasawuf fi la tawxiid feq téere yooyu yi nga xam ne moom la wayoon di jël ñi nit nag di leen jàngal di leen jëmee foofee kon nag ba tey jii loolu yi moo fi nekkit te loolu la ni màggal ñu ñëwoon nag di la siyaar bu baax a baax a baax di la siyaar bu baax a baax a baax a baax nag di la ndokkeel bu baax a baax di ñaan sama borom yàlla yit yàlla na sama borom yàggal toogaay bii lépp lu ñuy séentu dale ci sëriñ bi ak ku ci mës a jaar rek ci liggéeyam yàlla nga ci am lu kawe njort ci darajey sëriñ Touba jërëjëf wasalaamualeykum wa rahmatullah Abdoulaye kàddu yi de kàddu lu may yokk la rek mais sëñ bi wax na lépp euh, di sant bu baax di am mbégte teew sama kilifa sama sëriñ sama xarit xam naa ni duma ñëw ci man ak moom li ñu liyee je pense que ni loolu moom xam na man xam naa ndax euh, ëtt bi miin naa ko lool Eh, saa su ne lu mu xat-xat-xat bu ma ñëwee yitteem yëpp lay bàyyi recevoir ma donc ñu ngi nuyu sëriñ bi eh, di ko ziyaar di ko jox wàcc waayam eh, di wax ni tey sama teewaay fii teewaayu taalibe la amaana ñëw naa fi kasketu directeur général ay AIBD ànd fekk sama collaborateur yi nga xamante ni ñoom lay àndal ci liggéey bi mais ànd ak sama famille politique bi nga xamante ni ñooñu nga ma doon xamee bi ma fi doon ñëw donc it euh, saa bu ñu fi ñëwaan nag nga dénk ñu euh, jox ñu ay conseil orienté ñu ba tey su ay responsabilité ñëwee tegu suñu kaw ñoom it fu ma dem damay continuer di ànd ak ñoom ndax kóllëre la mais également ndax bokk vision bi nga xamante ni moom la ñu am donc euh, di sàkku ñaan rek parce que xam naa ni moom xam na man xam naa nga ñaanal ñu mission bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall dañu koo dénk yow nga xam ci dara ndax dara umpuli ci ci biir ak ci biti euh, te yaa nga ca parce que yaa nga ca woon démb tey ak ëllëg nga ñaanal ñu bu baax a baax mission bi yegg ndax président de la république dafa am euh, yéene vision bi mooy def euh, Sénégal le premier hub aérien sous-régional loolu na mu nekk projet yu 10 a 10 mais xam nañ oyof na ci ñun ndax ba ñu ñëwee ba léegi ak équipe yi may àndal ñoom it euh, taxaw nañ ci euh, di ma ci jàppale ba tey ñu ngi gis ni projet yaa ngi génn te loolu lépp mooy intérêt Sénégal ndax ku xam aéroport xam ni mooy visage yu Sénégal mooy euh, première image boo xamante ni mooy wane xar-xaru kanamu Sénégal te loolu président Macky def ci lu am solo ndax képp kuy tukki ci sous région bi xam nga ne aéroport bi ñu am aéroport bu mucc ayib la te loolu lépp nag xalaatu gis-gisu son excellence le président Macky Sall ñu nit amuñu dara lu dul moom si si gannaawam lañ topp moom la ñu déglu fu mu jaarloo fa la ñuy jaar lu mu ñu doxloo moom la ñuy dox ndax suñu yéene ak suñu vision dañ koy wax mooy la loyauté ndax it yow it loolu nga may dénk saa su ne bu ñu déggantee bu ñuy waxtaan donc ñaanal son excellence le président Macky Sall yéene bi mu am ci Sénégal mu continuer continuer des programme du plan Sénégal émergent donc nag di ñaanal réew mi mais nag bés bi muy màggal gi ñu jëpp euh, ñaan yegg si si jàmm ak ci salaam léegi lañ jógee si xalif bi yeesal sunu taalibe mais également yeesal sunu euh, pas-pas si yoon bi ndax ñun amuñu lu dul yoon bi sëriñ Xaadim Lo wax na ko duñ ci ñëwaat euh, bés bi bés bu rëy la ci ñun bés boo xamante ni bésuñ nangu ñaan la ndaxte liggéeyal sëñ bi mënul met mënul yomb parce que sëriñ bi bés bi euh, si jafe-jafe ci coono la ko amee ngir ñun jafe-jafe yi ñu waroon am coono yi ñu waroon am sëriñ bi moo dékku lépp téye ko loolu nag ñun bu ñu ñëwee fii du ñu mën lu dul sant gërëm mais également ñaanal la taxawaay bi nga am ci kër sëriñ bi euh, yàlla na ko yàlla yokk yàlla bàyyi la fi ay at yu baree baree bari ba lépp loolu liggéeyal sëriñ bi mu nekk loo xamante ni day kawe kawe kawe ndax yow ndam nga su ñun fierté nga su ñun ci xam-xam bi si dal bi mais si si bëgg Serigne Touba mais également ni nga toppee sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na yàggata lool te wér ndax si moom lañ jóge kontaan na lool ñaanal nañu également donc di du ma terminer nag du ma sant sëñ Xaadim Lo Gaydel ndax te ndaxte euh, man ak moom démb la tey doog a ñëw ñu bokk Thiès gis ni muy taxawoo Eh, jeunesse bi ni muy taxawoo waa Thiès kilifa diine la mënoon na rek toog lu mu soxla mu fekk ko fa wante ndaw boo gis muy taxawaalu jël na la taxawu la conseiller la jox la nga dem liggéey loolu la ñuy doyee sëriñ te si loolu la nekk loolu la ñu jàppantee dañoo bokk vision bokk ay principe ngir liggéey dëkk bi mu ànd ak man ci loolu nekk sama xarit nekk sama soppe nekk sama sëriñ moom it ñu koy ñaanal yoon bi nga xamante ni moom la yor di ko liggéeyal sëñ bi yàlla na yegg di kontaan ci ñëpp sëñ Cheikhouna Mbacke ñoom ñëpp xam nañ sama digganteek ñoom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp su ma toogeek sëñ bi moom duma amati sago ndax euh, sama lépp la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi mu ni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne mi ngi delloo nuyoo bu baax a baax ne di ko teg ci loxol sëñ Xaadim ak sëriñ Cheikhouna Mbacke mu doo koo teg ci loxol si Abdoulaye Dieye sëriñ bi ne Abdoulaye mu ngi bég bu baax a baax nag ne ci tànk yeeg jéego yi ne du ko rafet lu bu baax rawatina nag ñii nga àndal ne sëriñ Seexu naa mii ne présenté naa ko léegi waaye day sëriñ Seexu naa day wëllëreem bu yàgg mais 1997 ba 2003 at mu jot daana dem itali waaye bu masee di ñibbi sëñ seexu naa nii moo ko yóbbu ci otoom ne kon loolu du tey waaye naka jekkat sañ seexu naa nii rek la mel kon ñu ngi bëgg bu baax seen diggante ne sëñ xaadim loo niitam ne lii ma seere léegi ndax jaxasoo nañ ñoom ñaar waaye musu koo gis mu ànd ak nituk àddina ñëw fi kon xam na ni sori nga ci moom xam naa ni léegi ci jukko rek la koy defee ndax loolu président sax jarul ko ndax xam na doxinam ndax moom sëñ xaadim nii sëñ Tuubaa képp la teg ci kanamam ku xam boppam la ku xam li muy def la ku am fulle ci li muy def la mais di borom taxawaay bu ma sëkkit nag rawatina ci kees mu jëmmal fa sëñ Touba jëmmal fa yoon wi am taxawaay bu rafet rafet kon bu nu sañoon ku ñuy tudd tudd sëriñ Touba taxawaay bi sëñ Xaadim am ngay taxawaay ci ñoom rawatina li nga ko seeree léegi te loolu mooy li ñu xam ci moom. nee seere moom la cëpp solo ku ko dégg xam ni dëgg la kon ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay yi yoon moo mu nekk dafa jëmmal yoon wi suñu borom gën koo kattanal gën koo dooleel ba mu yegg fa mu jëm di la delloo nuyoo yow itam Abdoulaye yaa délégation bi nga àndal bépp muy ñaari délégation bu njëkk bi mooy ñi nga daan doon bu ci des liggéey la boole ñoom ne yàlla dafa def nag ngay wëlëreem bu yàgg ne waajuram bu jigéen itam am ci moom ak cofeelam lool yàlla def ne waajuram bu jigéen woowu ko indi ci moom ne moom it nga mu am nga am ci moom ak cofeel lool kon kat Cheikh Modou Bachir ne seen diggante. ba ñuy jaxasoo booba xamanteegul sax ak président Macky Sall comme yàgg na waaye nag ngay nit ku baax nit ku mën a jàppale nit te ñu ñi ne ci kanamam di yëngut fi ci wàllu wàdduna ku ci ëpp taw feex rek mooy ki gën a mën a sonn ci nit ñi ndax bu ko nit ñi gisu nit doon ci am paw suñu borom te xam na Ablaye sëñ bi ne li ngay def ci nit ñi waxuma ko sax waaye nit ñi ñëw di ko wax loolu nag dañu ci soññ bu baax a baax nga gën ko wéral ne cër bi nga am ca dëkk ba ca kees yaa ko liggéeyal sa bopp ba cër bi dolli ko waat tey kon li ngay ñaanal la nga fa sumb yàlla na ci yàlla dimbali defal la kattan ba lépp yegg ba ni ñu ko bëggee mu defee ko noonu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ndax at mu jot nii nga ko daa defee ànd ak bi defee ko nii nga ko defee kon yàlla nañ ko yàgg a def suñu xolam sedd na guy ñu ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal yaakaar gi yàlla na dëggu ndax yému ci moom yému ci président waaye ñu bari ñu la xam ñu ngi la koy seedeel di di ko dégg kon yàlla na la ci yàlla dimbali jërëjëf salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar